بأنني الخديم في المدينة براني الله لدى الكناكي من كل جالب إلى المناكي أصب أن الله في قرم بسا قبل مبارس رواني خلبسا دان يريم عند دومي لو بما أغناني تصومي يسرني المنى لدى لي برولي من خادني ما خاب أن كل asalaamaaleykum mbokk internetu jàmm ji info ñu ngi leen di ziyaare waat bu baax a baax rek di ziyaare sama cadre Amar di leen wax rek ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ñu ngi fii nag ci bërëb bu sell bi di Daaray Kaamil tey nag ñu daal di taxaw rek ki nga xamante ni moom moo di Serigne Ousseynou moom nag mu daal di nekk coordonnateur fii euh, ci euh, bërëb bu sell bi mu di euh, Daaray Kaamil li ñu bëgg a waxtaanee ak moom nag bokk na ci rek mu gën ñoo xamal ki nga xam ne moo di Serigne Abdou Ahad mu sell mi kon Serigne Ousseynou maa ngi lay ziar bu baax a baax bàyyi la rek nga nuyu ñuy seetaan jàmm ji info bu ko defee ñu daal di barkeelu ci waxtaan waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu leen nuyu leen ziara mm-hmm. leen dalal jàmm fii ci Daaray Kaamil di bibliothèque Cheikhul Khadim Euh, fii nag euh, sëriñ Abdou Lahad moom nga laaj mooy kan sëriñ Abdou Lahad mooy doomi sëriñ Touba mhm. nekkoon ñetteelu xaalifa sëriñ Touba gane woon àdduna 1914 génn àdduna 1989 mu nekkoon koo xamante ni dëgg yàlla nitu ku xam-xam la woon nitu yàlla la woon mhm. ku liggéey lu bare bari ci yoonu murit ndax am na lu bare bari loo xamante ni moo ko fi jëlee am na lu bari loo xamante ni moo ko fi jëmmal nekkoon na ci yoon wi bëri woon na ay caaxaan bëri woon na ay bumbaay waaye bi mu ñëwee moom mbooleem bumbaay yooyu ak caaxaan yooyu da fee jëlee indi dëgg nga xamante ne boo gisee yoon mu tey mu am pas-pas bi ak culture bi mu am moom moo ko jëmmal ci taalibe yi def ko ci xolu taalibe yi muy culture passif culture gëm sa bopp culture mënal sa bopp jikko yooyu yëpp nag sëñ daal moo ko jël def ko ci murit yi mu nekkoon koo xamante ni amutoon caaxaan lu ko ñor da koy wax ci saase du nëbbal kenn dara lépp lu mu bëgg a wax day da koy woo ñëpp da koy day woo presse bi woo rajo yi ñëw jël ko mu wax li muy wax mu nekkoon koo xamante ni kenn yebbu ko woon ndax daawul def leen loo xam ne dañ ko yeblu daawul daawul daawul def loo xamante ni dañ ko yeblu moo tax mu nekkoon koo xamante ni kuñ joxoon cër la ku yoon wi joxoon cër la ndax dafay liggéey liggéey bu yemm yemm ba pare def ay réalisation yu am solo yoo xamante ni yoon wi soxla woon na ko ci jamonoom lu mel ni euh, maanaam daa jumaay Tuubaa ji nga xamante ni yokk yi ci nekk jumaa ji dafa xaw a xat sëñ Fallou jamonoom la fi nekkoon ci Touba moo fi nekkoon waaye nag jamono sëñ Blaat ñu bari ñoo daw woo ñëw wut si wut si Touba Touba di yokk ci la yokkee jumaa ji nga xam ne yokk yooyu moo ko fi yokk bi mu paree ci loolu ñëw ci daare kaamil def benn bibliothèque boo xamante ni lépp lu jëm ci wàllum mbindam sëñ Touba wala ci xam wala ci alxuraan mu def ko fi ginnaaw loolu mu def benn université boo xamante ni université bi nga xamante ni moom la sëñ Mamadou Mountakha di euh, continuer sëñ Blaat moo ko taxawaloon commencé woon ko bëggoon loo xamante ni yoon eh, dëkk bi dëkku xam-xam la yoonu xam-xam xam-xam la képp ko xam Sëñ Tuubaa rek xamee ko ci côté xam-xam mm-hmm. kon Sëñ Abdou mooy mooy kooku ci gàttale ndax xam eh, ñaata at la toog ci jal bi waaw Sëñ Abdou Lahat li mu toog ci jal bi 1940 1968 mm-hmm. ba 69 89 waaw diggante 68 ba 89 euh, moom la toog mën nañoo kaamil ban at la ko sancoon ba daara kaay ñu ngi ko sañcoo atum 1977 mu nekk euh, liggéey bu rëy boo xamante ni bokk na ci naa li gën a am solo ci yoon wi ndax tey bu demee ba am ay ressources ci xaside yi wala ci ay référence ci Sëñ Tuubaa wala ñu ko jëmmal daara kaamil ma ko waral ndax xaside yi bu njëkkoon jafe woon na lool dafa saaroo woon leneen li am ñu ko dencoon leneen li am fu mu làqu woon waaye moom bi mu dikkee gis-gisam mooy li njëkk ci taxawal euh, yoon wi wala sàmm yoon wi nañ jël mbindum Sëñ Tuubaa teg ko ci kanam mm. ca la jëlee réalisation bu mag boobu di Daaray Kaamil mboolem xasiide yi nga xamante ne moom la nit ñi di jariñoo ci biti mm. fii la ko fii la fi la jógee ndax moom dafa gisoon ne mbir mi bu ko gaaw taxaw mool ko sotti ko bu yàggee mën naa raaf mën naa réer mm. ca la xoolee mag ñi nga xamante ne ànd nañu sëñ bi liñ yor ci wàllu alquran wala ci xasiide sëñ bi mu dajale ko mu wal ko def ko fi nga xam ne li fi nekk lépp al xasida la yoo xamante ni Sëñ ko def ak téere xam yoo xamante ni day jàngale sa diini. Mm-hmm. nañoo xam ñaata ci ay téere ñoo fi waaw nombre téere bi nag exact moom mënuñ koo wax. ndax loolu Sëñ Tuubaa moom li mu bind lépp lépp mënuñ koo lim. ndax loolu oh, dafa nekk loo xamante ni tey boo ne woon daaray kaamil nangu nangami nombre yu téere ma nga fa day mel ni Sëñ Tuubaa loolu dong la bind. Mm-hmm. te Sëñ Tuubaa li mu bind lépp nit mënu koo teg bët munu koo xam. moo tax ñun mënuñoo joxe nombre exact bi nga xamante ne moom la sëñ Tuubaa bind ndax bu ñu woon daare kaamil nekk nombre exact moo fa naan sëñ Tuubaa nangam la bind te moo ne woon karaamati xattu yat yi sama karaama mooy li ma bind sama kéemtaan mooy li ma bind kon suñ nombre exact boobu moom mënu mënaguñ koo mënaguñ koo joxe. d'accord ñu fi nga xamante ne tamit moo di bërëb bu sell bi di daare kaamil chaque at rek dañ koy gën a ñoŋal euh, est-ce que mën nañoo xam lu ko waral. waaw loolu lépp ci alquran la ndax alquran fu mu nekk ak xasida dañ ko war a gën a méngaleeg jamono ndax euh, mooy li nga xamante ne tey moo téye àdduna buñ taxawee ci àdduna di mën a am climat bu baax di mën a am naaj bu dal di mën a am jàmm alxuraan la moo ñu ko may léegi nag foofu nag bu fekkee alxuraan maa ngi fa ñu ko daaray kaamil muy këru alxuraan kër yëpp a ngi ñëpp a seen i kër defar seen i kër defar i néeg kon nag kër goo xamante ni këru alxuraan dañ ko war a méngoog jamono ba nga xamante ni lépp lu jamono laaj lépp lu jamono soxla ci loo xamante ni mën nañ ko jëfandikoo ñu ànd koog moom. moo tax muy loo xamante ni mënut a ñàkk ci barab yi. daal de kaay na ay mbóot mboot yi moom bu ma alxuraan alxuraan moom mbóot mooy mbóotu lépp lépp loo gis alxuraan mooy mbóotam mooy faw xam mm-hmm. alxuraan ji macha allah li ci nekk ci alxuraan ji nga xamante ne surtout suñu ñoo ko bind mm-hmm. ak taalibe yi bari na lool mm-hmm. ginnaaw xaside yi xaside yi bari na mbóot mboot yoo xamante ni kenn mënu koo takk li fi nekk ci ay mbóot moom macha allah bari na lool loo xamante ni kenn ndax mbóoti yoo nu yëpp ñu ngi li yoonu murid lu bare bari ci ay mboot mi ngi fii ndax buñ demee ba ne xaside yi këru xaside la këru alxuraan la ndax buñ ne daaree kaamil rek da nga yaakaar ne ay kaamil dong ma fa nekk mais këru alxuraan la këru xaside la këru xam-xam la ndax mbooleem fànni xam-xam yi nit ñi di soxlawoo ci seen euh, njàng sëñ Abdoulaat jëlee na ko bitim réew lépp fànn mi universitaires yi jàng ci université yëpp indi na ko ci barab bi mbooleem xeetu xam yooyu yëpp yu ci baree baree bari mi ngi fii loolu lépp nag jubloon mooy fexe ba téye doomi dëkk bi ba duñ jën di jéggaani ndax soo jéggaanee xam-xam da nga culture boo xamante ni bokkut sa culture mm. su ko defee boo ñëwee nag am culture boo xamante ni bokkut ak yi nga xamante ni moom la nit ñi soxla ndax bëri na ñoo xamante ni jàngi nañ ñëw bañ ñëwee li ñuy dund bokkut ak lañ lañ seen maam daan dund wala seen baay daan dundu mm-hmm. ñëw indi beneen civilisation beneen complexe boo xamante ni doo bokk sax ci nit ñi mm-hmm. da nga yaakaar yàggat nit ñi loolu nag bari na lu baree bari ci doomi réew mi ñoo xamante ni loolu faagaagal na leen ba ñu bari sànku nañ am na ñoo xam ne jàngi woon nañ ñëwatuñ ndax culture bañ def ci ñoom ci dëkk ba tàmm nañ ko mënuñoo gën dëkk ba Sëñ nag gisoon ne loolu nag mi ngi yàq lu baree bari te jamono dana ñëw danañ soxla loolu ca la récupéré xam-xam yu bari bitim réew indi ko fii ci barab bi da daal kaamil muy euh, laaj bi may jeexalee rek bokk na ci tey yan charte lañ fi teg ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw di ziyaare euh, yu baax yi nga xamante ni moom moo nekk ci bërëb waaw charte yi moom sarti taalibi la sarti julit la mooy yiw sell ànd ak yar ak i teggin ndax du barab boo xamante ni barab bi ngay jàppee sa kër wala beneen barab ndax barab bu màgg la alxuraan fi nekk ak xasida ak xam-xam ak barab bu suñu abdulaat bi nga xam ne ci biir kon ku fi ñëw war nga ànd ak yarub taalibe ak teggin ak yaru julit ànd ak yiw ànd ak laab ànd ak euh, néewi kàddu ànd ak dal nànk dox nànk ba nga xamante ne ku la gis dana xam ne yow mii am nga looy wut si ndax nit kii lépp lu muy wut da caa war a ànd ak tey ak ak ak ak ak dal waaye di wut dara di daw di wut dara di di wax ci wax ju bari loolu bokk ci teggin ndax dañ ne la boo julli ni ngay téye say cër téye sa cër yëpp benn yëngatu loolu day mel ni yàlla ngi sa kanam léegi nag booy siyaare ji ku baax wala nga dem ci barab bu baax noonu nga war a mel ndax yàlla mi ngi fépp surtout nag barab yi sell yi nga xamante ne yaakaar nañ ko fa lool kon yar ak teggi nag euh, yiw ànd ak yarub taalibe daal lañ soxla ci ñi nga xamante ñu ngi fi ñëw. Mm. ñu la gërëm la nga ñaanal ki fi toogal ñu ngi leen di sant leen gërëm di ñaanal Cheikh Mamadou taxa moom wax dëgg yàlla ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool ndax sagub yoon wi la sagub lislaam la ndax euh, gis nañ ne wax dëgg yàlla mm. taxawaayam ci euh, nit ñi taxawaayam ci lépp loo fopp bépp domaine boo làmb rek fekk ko fa mm-hmm. ndax moom nitu xam-xam la nitu social la. lépp loo gis rek nit ki war koo jëriñoo ne suñu Mamadou Mountakha dugal na ci loxoom. kon moom wax dëgg yàlla dafa ñëw indi yoon wi indi ko ci beneen dimension muy dimension boo xamante ni képp ku gis yoonu murit da nga ko naw képp gis yoonu murit da nga ko ñëwee ndax ki nga xamante ne moo nekk seen kanam moom day wax dëgg yàlla fàttewut dara fàttewut néew ji doole ji fàttewut ñu am fàttewut ñu ñàkk ñu amut ñëpp la yemale ba gis nga rek fan yi lim def social génne lu mat 150 million def ko ci ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dafa ndox ci ginnaaw waaye mënuñoo lim ab taxawaayam ci yoon wi lim def lépp moom ku ko ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla dolli eh, wéram te yàlla yàggal ko fi lool bañ yàgg ànd moom liggéey bi ci barke Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah بأن الخديم المدينة برام الله لدى الكناك من كل جانب إلى المناكب asaba anillahu fi garambasa qablu mubari sirwani khalbasa dan yarim inda dawmi لو بما أغنى أني تصومي يسرني المنى لدى لي برولي من خادني ما خاب أن كل